yonent bi sallallahu su taxawee nit ña luñ gudd gudd mu tiim leen sallallahu alayhi wa sallam ay bëtam dañoo rëy ay yéenam dañoo sëq ay xefam dañoo sëq ba kanam dafa yëkkatiku gémmiñam dafa yaa waaw dafa amoon sikkim waaw bu sëq waa ak i faas sallallahu suuf service moo demee noonu day jafe pour ñu dajee mais yàlla def nañu créé benn groupe WhatsApp si li ñu mën a jàllale message yi soo amee ay cotisation yu ñu war a def ñu jàllale ko fa ñu dajale ñi am jot nekk ci secteur bi gën a jege ñooñu yóbbante leen ñu ñëw teewal ci tànk yooyu leen taxaw dugluñ la nation wala di ñëw di leen di sax ngeen ñaanal ay ndaw leen dañuy soog a door bëgg nañ ñu dem ba bokk si ñi nga xamante tey jii di leen dimbale ci wàllu alal wàllu xam-xam ci lépp loo xam ne tey jii danañu ko yittewoo ñun ñu mën leen ko taxawoo loolu nag il mu am dimbal ak barke suñu ñu ko yaakaar si yéen ngeen ñaanal pour mu yomb ñu ko ñu bëgg ñu def ko sooy yàlla suñ boole woon kàddu yi daal ci gàttal jot nañ jaar ci cheikh bi ba ziar ko léegi la ma ma doon suma rakk ma ne ko ñu jaar ko ñu xam comme daare bi day ñu soogaro ñu xamante euh, kilifa yëpp ñu xam ne ñun seen taalibe lañ ñun seen i doom lañ lépp bu nga xamante ne nii bu ngeen yittewoo la bu ngeen soxla te bu ngeen ñu si jàppale ci xam-xam dimbali suñu liggéey bu ñu nas mooy lan liggéey mooy la Cheikh Ibrahima amuñu ci benn programme amuñu ci beneen yitte lépp rek lu mu mën nga dajale lu mu mën nga ko tudd ñu ci lañ liggéey mooy la Cheikh Ibrahima te lépp moo xam ne pays bii daf koy laaj di leen ci bëgg leen cee jot parce que daayira bi ñu ko sasee aussi bindu leen ansaaru diin topp nañ ci ñoom maanaam tey bépp cotisation bu war si ansaaru diin dañ ko fay cotiser daayira bi nag benn mu xadam jiitewu ko parce que ku si nekk am na foo woo si law mais danoo boole gendarme yi nga xamante ñoo nekk biir euh, gendarmerie yëpp national ñu dajale leen ngir ñu mën a liggéey noonu la chef daal kon foofu mu xadam amul maanaam ñu am secrétaire ñu ñëpp bu mu absenté na ko liggéey di gërëm sant di euh, gërëm ci teewaay bi ak euh, ñëw bi ñu bokk xam ci bés ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ci ndokkeel di ci ndokkeel euh, mbooleem jullit yi ñu ne la yàlla yàlla nangu suñu di daal ak yonent bi ak zikkar tudd ki nga xam moom nekk yàlla bi mu yonent bi Cheikh Ibrahima ñu ngi suñu buntu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di suñu buntu ci Cheikh ci jàmm mooy suñu sëriñ la boo xam ne wax dëgg yàlla ba nekkee lu ndaw di faat dafa mos a toll benn bés am benn gan bu ñëw seet si maanaam di ko Abdoulaye Ibn Hadj Abdoulaye Ibn Hadj maanaam Abdoulaye dafa yaa gën ñaan yàlla ndax dama bëgg buñ déggee Cheikh Tidiane nee na teeti fay dafa am na leneen luy ñëwal ji daan dem dem aji topp yàlla rek naan ko yàlla yow yàlla yàlla may doon doon Cheikh Tidiane doon benn jamono xaaral bi ñu ne ba nekk mag maam am kilifa yi maam gan kanam ñaari gan am ñu maami xaaj bi si ak doy bi xaaj bi koy ma ñu tey yaay te yaay ñëw seet maa dal ci bi toog ñu toog ba benn bés xaaral ak sama xam ak benn war a ko bàyyi ba bàyyi nekk ndaw am juróom ñett ak dawal nga dem laa boobu mu wax ma lan yëkkati juróom-ñetti dërëm bi ak war ma ba jox waaw ne ko sama bàyyi moom wax moo wax la ne la lan la la yàlla wàcc si moom bi lan laa ca yàlla waaw dana ko ah dama wax si dama koy léegi xubb ba wàllu yàlla waaw jël si waat mu ne maa laa man nee na dama xubb ma wàllu yàlla maa laa di nekk waaye soo war a mën a ñëw ci dama ko wax léegi doom bi sama doom bi mooy sama yaakaar sama doom bi loolu li nga wax moom métti na ma ne ko ah ma ne ko ah ma doom bi moom ci mooy sama yaakaar may ñaan yàlla yëpp ma doom di yaakaar ne gannaaw ma suma doom yi wàllu yàlla dëkk mën na ko léera bi kun sa doom yi chek nañu si on est xàq la mbir la ci mbir yàlla kon kooku mooy suñu sëriñ di koo xam ndax dëgg yàlla bu nekkee lu sëriñ am am lu sëriñ incha allah yoonam du dara di du cofeel cofeel bi am tubaab yi ko daan ñu fekk aussi bu ci commencement fab ñu ngi nekk jeune 33 ans yooyu ñu ne ko yow ci Ibrahima la nga ne ñu ci ay sikkar ñu jeex yàlla du dara allah ma xam yàlla cofeel cofeel boo amee cofeel rek am na am na ay manager yàlla lëf li ñuy bëgg lëf li ñuy bëgg bu ko defee ci njiit na ngay génn dégg naa la yàlla mooy cofeel mooy yàlla mooy te ñu ne tubaab bi ne bàyyi mooy collège naan ñu ne bàyyi cofeel rek mooy maarifa daa leen dégg yàlla lëf li ñuy dund lëf li ñuy bëgg la li ñuy bëgg kon bëgg boobu mu xam ci yàlla moom la tasaare suñu dënd bi moom la def suñu xol yi dañu bokk ñun tam nekk di ay taalibe te ngeen nekk section yoo xam ne ay gendarme ngay nekk ñoo xam ne yéen a liggéeyam état bi zaahiran te seen baatin du bàyyi te bàyyi noonu la ko doon doxalee bu ñëwee am na ay président assemblée am na ay président yoo xam ne moo leen yàlla bokk jox leen ñu toog seen biir yi bàyyi leen xamal yàlla dañu sax xam ne ne bàyyi ko tàmbali yàlla bu nekk ci ay présence assemblée nationale ci jamono baay bi Niger dana ko tarbiyal am yàlla kon nekk ci mission ñu ngi nekk gendarme militaire nekk bonam teri terreur itam la nga dund ak yàlla nga dund ko ñaan kon dina yàlla mayee ngeen boole mission bi ngeen di def ak mission bi yàlla itam si seen xol yi fees dell ak yàlla ñu leen ci mbokkal ñu ñaan yàlla yàlla yàlla nga ci xol yi bëgg yàlla may bëgg la te ñun nag wax dëgg yàlla kon suñu yëngu di soxla ndox mi moo leen jox ndigal bi moom am na ndigal borom ndigal la ñoom ñoom la kon nag yàlla def na ba taay yooyu. moom di def ci xëj na cheikh bi wax ci nekk ak fa nga nekk rek daanaka ku nekk fa nga nekk rek na nga ci fekk na rek xëj na bu ci wax xëj na bu ci jëf xëj na bu ci sa doole. ñu ne ñu yàlla ñu yàlla may nangu ñu boole ci ñi nga xam ne comme ni nangu la bàyyi bàyyi nangu ñu moom tamit ñu nekk la taay yooyu. Baye Niass jërëjëfee Baye Niass waaw lu waral suñu teewaay fii mooy dañu doon benn ay taalibe dañu doon ay taalibe Maolana Cheikh Ibrahima Niass ñaareel bi mooy su euh, suñu wàllu liggéey maanaam gendarmerie dañ fi am daayira ñu ko tuddee moo taxa bi fi la section gendarmerie waaw bi ñuy bi ñuy bi ñuy doog a door Cheikh Baba mi moo ñu jox moo ñu jox tur ñu joxee tur boobu ba léegi ñu ngi ci macha allah di xidmal baay bi ñu ñëwee léegi nag ñu ngi jéem a mën a suñu ay activité def nañ fi ay jënd nañ ay sachet ndox yu bëri séddale ko euh, ñu ngi dool ñu ngi xool daal su lu ñu mën a jàpp si gàmmu gi ñu jàpp suñu ñëw nag fii si Cheikh Baba dafa nekk ni moom mooy suñu wasila moom mooy suñu wasila moo tax ñu ñëw siyaare ko sakkuwaat ay ñaan sakkuwaat ay ñaan suñu wàllu liggéey ku ne xam na ni gendarmerie liggéeyam ñëpp xam nañ ko donc moo tax ñu ñëw fii siyaare ko yëkkati lu ñu am jox ko ko si moom ay ñaan waaw loolu daal mooy mooy suñu teewaay fii ñu ngi ànd ak suñu président euh, gendarme Gora Ndiaye secretaire général Amara Doumbouya ak euh, Ndiogou Dieng waaw sama sama sama sama <laughs> sama jàmm bi ak ñi ñëpp daal ñi ngay gis fi yëpp ñu sol lakos yi ay gendarme lañ waaw ay gendarme lañ ay taalibe baay lañ waaw ñu sant yàlla ñaan yàlla déwén li ñu def ren ñu def lu ëpp loolu déwén incha allah bu ñu jógee si gàmmu gi ren allah dimanche. suba ñu waajal gàmmu déwén incha allah ñaan nañu yàlla li ñu def ren déwén ñu def lu ko raw waaw. alhamdulilah rabil alamin jërëjëf Baye Niass. yàlla fay si barkeb rek ngeen yaakaar fay te mu dëgg a fay keneen mun a fay ko moom mun a fay yàlla na leen fayal boppam yàlla bu leen yàlla bàyyee kenn yàlla na leen yàlla sàmm seen liggéey aar leen sutura ubbil leen fi daayi man faw kon ñu jox kàddu gi ki nga xam ne mooy président euh, moom mi nga xam ni euh, duhul yaa leen mën duhul yaa leen gën waaye nag euh, njiit coono rek yàlla la tànneeku yàlla la bu yàlla jiital rek jiitu bon président comme ni ko sa gars yi waxee ak liggéey bu rafet gi ngeen fi liggéey ak euh, taalibe gi ngeen di doxee si biir kër Cheikh Mouhamadul euh, Amin Baba moom mi nga xam ne ñëw ngeen ziara ko si tey maanaam ziara mooy ziara dolle dolleeku léegi li ngeen yëg si seen dolleeku ak maanaam lépp lu ngeen di waajaatal lu nekk seen kanam yow président ak yow maanaam ni la tànnee ba nga xam ne wóolu nañ la teg la seen kanam nga jiital leen yow yan lan mooy sa projet si xadara bi lan mooy sa projet si mbooloo bi nga àndal si lan nga leen di ñaar si lan ngay di ko ndokkeel suñu bopp di ndokkeel Maolana si bés bi nga xamante ne ni moom uh, bu weer wi saa bu teroo woon rek da ngay gis si kanamam mbégteem dégg neen ñu koy waxtaanee du benn di ñàkk weer bu teroo rek mbégte da ngay si kanamam te lan moo ko waral mooy mbëggeelam ci yónnent bi. comme ñun yàlla def nag ñuy ay taalibe nekk ci ëttu Maolana Cheikh Ibrahim doon ay gendarme taxi yàlla bam ñu booleeg Cheikh Mouhamadou Baba Lamine ñëw nañ ci moom ne danoo bugg gendarmerie bépp taalibe Maolana Cheikh Ibrahim bu fa nekk ñu dajaloo booloo doon benn parce que mbooloo mooy doole la fait que ñu dispersé wu kii di liggéeyu ak gauche loolu pour ñu xidmal baay il faut ñu booloo suñ alal booloo suñ doole booloo suñ xel pour ñu mën a liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima benn ci su côté professionnalisme mooy maanaam ci lu ñu yëngu ci côté gendarmerie ñaar ci suñ côté doole ci suñ lu ñu yàlla dénk wërsëgalee ñu bokk ko pay bi te bëgg nañ ëllëg li dañuy soog a tàmbali ren mais bëgg nañ dem ba pay bi kër kër doomu ba Mawlana Cheikh Ibrahima boo gis rek ñu yeewal ko nag def loo xamante ne lu ca war la am nañ mébétu ëllëg lépp loo xamante lu war a dem ci tante bi la ñu ne ñii taalibe gendarmerie yi nekk Maolana yu taalibe baay yi nekk gendarmerie ñoom ñoo ko dajale def ko ngir Maolana Cheikh Ibrahima yooyu projet bokk na si nga xamante ni moom moo ñu gën a ñor certes dañuy soog a door nag mais euh, loo gis lu ne rek toq toq ne moo gën yuréet te am na li def ren te am nañ yaakaar ne déwén envisage nañ def lu ëpp loolu te bu soobee yàlla ñu ngi ñaan ñëpp ñaanal ñu beneen bi ci li nga wax comme lii ñu tànnee def ñu njiit njiit comme li nga ko waxee rek loolu yàlla moo koy def ñoom xëy na du ci xam-xam du ci dara da du ci martaba du ci lenn mais ñoom ñoo concerté wu jiital ma doyloo ma ne dañ lay def président jéem naa bañ mais boo su ma ko ci yenn waxu bàyyi bu na la waxal nga bañ rek doo too wax kon buñ la sampee na la yow da nga war a liggéeyal Maulana Cheikh Ibrahima nga ne yow taalibe nga nga bañ rek c'est parce que kon naroo doon naroo doon taalibe loolu moo tax ban ma ko ban ñu ko euh, sase diis na lool nag mais yàlla dafa def ñin àndal ñu koy liggéeyal doon leen ay jàmbaar yoo xamante ne ni wax dëgg fa yàlla xidmal Mawlana Cheikh Ibrahima moo leen ñor lépp dinañ ko ñu ngi génne si seen xam lu ñu xam génne seen doole génne seen poos lépp lu ñu am di ko def defuñ ko ngir lan dañ koy def ngir xidmal Mawlana Cheikh Ibrahima parce que bés ngi ñëw ëllëg marta ba mënta gën a rëy nga liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima kon yàlla bam ñu mayee ñu am njorteef bu rafet ba dégg loolu tax ñu ba dajaloo booloo ne dañuy liggéeyal Maolana Cheikh Ibrahim si buntu gendarmerie te loolu mooy suñ mébét am neen si yaakaar bu baax a baax incha allah. waaw ah, sëriñ bi ahlan euh, kontaan nañ lool si kàddu yi leer na. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye ba tey ñu lay laaj ba xam ndax euh, gendarmerie yooyu noonu ñuy wax maanaam euh, seen daahira boobu noonu ndax dafa ëmb gendarmerie yi nekk Dakar rek wala yi nekk si réew mi yëpp la. wala si benn raison yéen ñi nga xam ne da ngeen dëkk Kaolack lag la wala maanaam mboolem gendarmerie boo xam ne rek moom si Sénégal gii nii suñu réew bi taalibe Mawlana Cheikh la. macha allah vous question pertinente parce que le but mooy maanaam bépp gendarme boo xamante ne ni yaa ngi yeewoo Sénégal ak bitim réew ñu dajale nga doon taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim ñu dajaloo ngir liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim parce que ñu si ñun ñëpp ku si nekk am na kër mu xaddam boo bokk am na ku la tarbiya muy sa wasila mais danoo xool ne suñu dajaloo ñun ñëpp ay gendarme leen ñu booloo amul bu nekk Kaolack amul benn parce que fu nekk am nañ fa un représentant ci 14 régions bu nekk am nañ fa un représentant boo xamante ne bépp taalibe boo nga xamante ne yow gendarme nga te nga doon taalibe Maolana am nañ suñ récépissé bi mi ngi en cours de validité su jàllee lépp li nga xamante ne ay coupure mensualité lépp dañ koy def jubluwuñ ci dara ngudul xidmal Maolana Cheikh Ibrahim amul taalibe bi Kaolack la bokk wala gendarme bii fële la nekk gendarme yi bépp bu nekk Sénégal ak ne mission ñëpp ci leen bokk voilà waaw parce que et puis euh, am na beneen question bu ma bi ma bi ma sama adjoint bi rappelé parce que biñ ñëwee créé loolu tamit ñoo doon jokk ci an ansaaru diin parce que baay moom moo wax ne na ngeen am carte ansaaru diin ba jot nañ euh, am ay carte numérique yi yoo xamante ne nii taalibe yëpp defar nañ ko suma daayira bi presque wax dëgg fa yàlla gars yi xidmal nañ ñoom ñëpp góorgóorlu nañ ba carte yi génn nañ voilà gis yi mi ngi nii mooy les cartes numériques ansaaru diin voilà léegi daara bii nii bu mari bi ñëpp am nañ ko te lépp lu jubluñ si dara lu dul ngir liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima kon maanaam tey ñun bépp sart bi nga xam ne war nañ si ansaaru diin bépp sart bu ñu war si ansaaru diin ñu ngi ko fay def bépp cotisé boo xamante ne ni dafa war si ansaaru diin dañ koy cotisé te teewul dañuy obligé encore tamit di liggéey loo xamante ne ni pour suñu daara bi am benn foo ngir liñ mën a def bëgg a def ci pays Mawlana Cheikh Ibrahima ñu mën ko cee def incha allah yal na yàlla barkeel yal na yàlla matal lépp loo xam ne yéen a ngi koy leen yàlla jox lu gën a kawe seen njort amiin yaa rabbi ba tey ñu dalalaat euh, ki nga xam ne mooy secrétaire général euh, mooy secrétaire général bi nga xam ne maanaam président bépp liggéey bu baax bu mu liggéey rek moom moo ko si jàppale moo si ànd ak moom si mbaaxam si gunge président ñu sëriñ bi ñu lay laaj maanaam sa àndoog président si liggéey si lan la si li ngeen di gën a ñaaxante yaa président maanaam ak li nga xam ne yow mu ngi sa pro say projet la si xadara bi maanaam sa yéene la si faydu Mawlana Cheikh Ibrahim si liggéeyal bàyyi moom mi nga xam ne moom rek moo jar a liggéeyal ndax kenn du ko liggéeyal te doo fay ko ndax yàlla du liggéeyal kenn ku nar fay te bàyyi maanaam ñëpp ñu ko liggéeyaloon ku nekk rek jot ko sa càkkuteef te kéem ni nga bëggee rek noonu ngay tëboo noonu ngay jotee yaara bi te ñun ñëpp bëgg nañ jot bëgg nañ tëbu ñu lay laaj li nga xam ne mooy sa xidmaal si bàyyi. sëñ bi maa ngi lay siyaar alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla sant yàlla sant yàlla bu baax baax sant yàlla bi si kaw lan mooy bu ñu yàlla defee ay taalibe baay ak xan ñu fas liggéey si si pays bi man maay secrétaire général daayira gendarmerie mu tax a benn fi la section gendarmerie bon su ma wax ko may kàddu xam naa duy sori parce que suma président suma njiit ak suma adjoint président deuxième président ñoom lu ñu wax dëgg yàlla moom wasaana wax nañ lépp daanaka damay mun maa bañ wax rek waaye mënoon na mun nañ ma tëb parce que lu ñu wax yëpp moom daa daanaka motal nañ lépp daara bi nag boo gisee ñi ñi teg ko dañoo toog waxtaan bu ñu toogee waxtaan ñun ñëpp ñu gis ni ko yoon la ko ñuy dajaleel taalibe Baye Niass yi yëpp ñu nekk biir mari pour ñu féewloo nekk benn benn groupe bu ngann boo xam ne dañuy fas yéene liggéeyal baay parce que ñun ñëpp am na fu ñu jokk am na fu ñu jokk noonu di ak service gendarmerie bi dootoo mun a amati jot bu ngay pour nga liggéeyal baay dëgg dëgg dëgg dëgg yow fu nga jokk gi loolu wa loolu gën na tax ñi créé suñu daayira bi pour ñu mun a liggéeyal Baye à notre manière ñun aussi bien vrai service def ñoo tënk mais danañ def suñu kettalan kattan pour liggéeyal Baye si loolu noonu parce que loolu moo ñu fi tax nek nekk loolu moo ñu fi tax a nekk danañ ko motal bu soob yàlla wàllum euh, kayit yi moom ñu ngi si kaw man maa géré wàllum kayit bu baax baax ñu ngi si kawam su ma récépissé maa ngi si kawam mu ngi avancé ak doole ñu ngi si kawam baax a baax parce que président juñu na bu baax si affaire boobu maa ngi liggéey moom liggéey bu rafet moom man macha allah ñu ngi dëggante bu baax baax maanaam daa daayira bi daal mu ngi fonctionné à part normal daal boo xoolee incha allah si kaw loolu maa di saa di leen gërëm di leen ñaanal yéen it di bu baax seen liggéey rafet na seen liggéey rafet na trop si pays bi fu ñu mënta dem yéen ñuy couvrir ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax yàlla na leen baay taxaw bu baax fayal leen boppam incha allah rafet na trop macha allah jërëjëf. comme la secrétaire général président yal na yàlla gën leen a jubale yàlla gën leen a boole lépp luy seen bébét yéen ñaar yàlla yàlla jox lu gën a kawe seen jox kii moom suñu xarit la suñu mbokk la si yàlla ñoo bokk ñu si la moom it euh, nit bu baax la ndax bu ñuy wax mun nañu wax si kéem li ñu xam te xam nañu si moom mbëggeel la kon bu ñuy wax wees am na li nga xam ne weesu na sax ñu ko koy laajatee ndax rek mooy bëgg-bëggam mooy euh, ay projet moo nekk si daayira bi gendarmerie bi maanaam tey tey lan li nga xam ne rek ay avancement la ay xalaat la moom sa kanam luy jëmmal daayira gendarmerie lu koy yóbbu kanam comme ni ko ñëpp bëggee yaaram bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi sant yàlla bu baax di julli si yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sant seen xalifa ñoom ñaar moolaana cheikhul islam alhaaj ibrahim Niass di wax jërëjëfe Baye Niass jërëjëfee jafe Bañes mi nga xam ne moo ñu may lii ndax ñun amuñ lenn lu dul Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye rek la ñu am te lii sant yàlla la ndax baay moo ne woon Seydi Aliou Cissé waxal taalibe ku ñu liggéeyal moo nga xam ne liggéeyal baay rek moom moo ñuy jëriñ te baay képp ku ko liggéeyal rek di nga jot sa caakteef lii nag muy benn daayira boo xam ne mu ngi ci biir faydu Mawlana Cheikh Ibrahim bi mutahabina fi la section gendarmerie mu ëmb mbooleem gendarme yoo xamante ni rek ñu ngi si dans tous les quatorze régions du Sénégal ñu liggéey liggéey bu am solo ñoo xam ne tamit ñu bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim Niass lañ quatorze régions bu si nekk rek am na koo xam ne moom moo fa représenté daayira bi kon nag ñu ngi rafetlu bu baax taxawaay bi ak euh, ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ndax and yëpp neex na waaye ànd ci yàlla ci a neex waaye ànd ci yàlla ci buntab kan Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu mi nga xam ne tey moo waral lii tey foo dem ci àdduna bi da nga fa fekk ay taalibeem ñoo xam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su taxawee nit ña luñ gudd gudd mu tiim leen sallallahu alayhi wa sallam ay bëtam dañoo rëy ay yéenam dañoo saq ay xefam dañoo saq ba kanam dafa yëkkatiku gémmiñam dafa yaa waaw dafa amoon sikkim waaw bu saq waa a faas sallallahu alayhi wa sallam